léegi waaw léegi xam naa thème bi ñu jël mooy euh, avantage xale yi pour ñuy def arts martiaux ñu teel ko def ko ñu teel ko ñu def ko euh, waaw pour élèves yi xale yi war a def arts martiaux euh, saa saa dugal mbengeen yi hmm. Omar dugal kii. nga dugal faale waaw <laughs> waaw xam naa lool dañu dem gis ay vidéo yu ma def yu ñu def ak xale yi comme ça bu ñëwee ñu expliquer technique bu nekk li tax ñu montré ko waaw. vidéo yu xaw a am solo la nag. mbett yi moo ngi noonu léegi boo gisee technique yi ñu wane da ngay wane après échopement si xale yi. Mhm. xam nga échauffement day tax xale yi gën a ubbeekook yooyu. voilà boo gisee si si si vidéo yi. Mhm. ñu defee étirement ba dañuy def euh, téye tànk yi jàpp xëcc xëcc si kanam di sëgg loolu day tax day assouplir nit ki day tax yaramam gën a nangu. nga boo mm, sama genre yi boo eggee benn kii beeg yooyu. Mhm. wala nga am euh, gëj a entraîné. boo taalalee tànk yi doo mën a teg say kii si genoux yi léegi nag xëcc boobu ñuy def chinois yi dañ koy def chaque suba bu ñu commencé bu ñuy nekkee Chine chaque matin dañuy def loolu ba pare léegi nag loolu day yokk si écart bi léegi nag gisoo moo xale yi dañuy mën a écarté téye loxo yi si kaw day metti début bi mais écart bi li mu lay jariñ mooy day tax des fois doo gaaw am blessure. gis nga fi mel ne nii ki ma voilà xale bi nga xam ne moo man écart fi mel ne nii moom bu bu doon daanu sax. comme ça xam nga man nga daanu say tànk xat boo écarté nga gaañu wala nga am blessure mais ki nga xam ne moom am écart day gën a yomb si moom. ba pare waaw ba pare ah. waaw sa sa de moom xam naa mënoon na ko de ay jamono. <laughs> non mais nii nii nii nii nii nii mën ngeen ko entraîné ba mu di ko def léegi. waaw du yomb hmm? yow mën nga. ah waaw mais dina ko man xam nga xale xam nga xale ak jigéen. dañoo gën a man écart parce que seen yaram moo gën a moo gën a kii seen ligament moo gën a oyof moo gën a élastique moo tax xale nga koy gën a mën a jànge wala jigéen ñi moo tax gisoo jigéen ñi def tay quoi ndoog yooyu lii béti mën na ko waaw béti mën na ko travail même ça mën na ko def mais day jël temps bu gën a bari day gën a jël léegi nag bi gis ñuy def pont di nga dem de voilà léegi nag deuxième bi may gis ñuy def pont mooy sëgg teg loxo yi ak kii bi boobu courbé wu noonu mën nga ko waaw boobu moom ku souple doo ko man mais boobu li tax mu am solo ñuy def yoga sax dañ koy def li am solo ñu koy entraîner mooy day defar say loxo abdominaux bi da sa abdomen bi da koy da koy renforcer day renforcer loxo yi day renforcer lépp ba pare day tax doo am ay douleuru ndigg wala affaire yooyu. Hmm. sa à dire boo koy def sax da ngay sentir fii di metti mais nag boo koy renforcer day renforcer sa colonne vertébrale. moo tax xale yi boo demee ba nekk mag. waaw parce que xale yi peut seen muscle yi dëgërul peut être yooyu dëgër dëgër. même si mag dafa baax mais comme mag goo xamante ni. même même si mag dafa baax parce que day lay day renforcer lépp ba pare day tax nga am doole ndigg ak yooyu yëpp quoi. léegi nag euh, ba pare souplesse bi ba pare nga gën a respirer ba pare aussi day day tax xale yi xale yu ndaw yi ñu am posture bu gën a jub. waaw comme ça xale yi faral di. courbé wu noonu ñuy faral di courbé wu ñu gën a mhm. mën a siggi yooyu tamit si position yi am nañu ko siy joxe si xale yi léegi xale yi nga xam ne dañuy faral timide lu bari dañuy faral di sëgg hmm. léegi nag boo leen di travailler loolu day tax ñu kii ba pare dañuy gën a am doole hmm. voilà parce que bi day metti hmm. mais day leen di gën a renforcer bu paree ñu dem si euh, technique yi coup yooyu yooyu tamit coordination coup de pied point lay doon mooy yi monté nii léegi ak roue yi mais maître euh, gis naa fi ay xale yu ndaw 3 ans 4 ans ban an âge nga xam ni xale bi buñ ko ci dugalee loolu mooy li nga xamante ni moo gën ci xale bi mu màggaale ak moom. xale bi entre 4 ans ba 7 ans. baax 4 ans dès 4 ans am na ñoo xam te ni 4 léegi surtout xale yi nga xam ne léegi dañoo. macha allah waaw léegi ay 4 ans dañ ci dugg mais ñenn ñi il préfère 7 ans. mais moo tax interval boobu la entre 4 ans 7 ans bu dee 4 ans la xale bu ñëwee da nga koy ba muy fort rek pratiquement di imiter. parce que comme la taawo yi monté yi xale yi doon def léegi loolu mooy taawo mooy kata benn technique daal dañ koy non surtout ndànk-ndànk nga ko exiger mais doo ko forcer bu baax parce que xam nga xale boo ko bu dee ay arts martiaux yooyu boo ko forcer comme ñuy jàngale boo ko imposer rek mu bañ li muy def hmm. léegi bu ñëwee da nga koy dugal parce que bu dee xale boo xam te ne mat na 7 ans war a jàng école 8 ans 9 ans kooku mën nga ko imposer yenn yi mu def ko moo tax xale yi dañuy gën a ki nga xam ne 4 ans la koy bàyyi mu début bi da koy bàyyi mu topp léegi bu toppee léegi mm-hmm. ndànk-ndànk muy imité comme man am naa xale yoo xam ne bu mm-hmm. ñëwee acrobatie gymnastique souplesse yi périer yi moo leen di neex loolu rek la ñuy def léegi nag da ngeen bàyyi di xool seen ñoom seen for fan la waaw est que xale war na activité physique mm-hmm. waaw parce que sànq yaa ngi wax euh, acrobatie ak yooyu mais activité physique parce que da ngay gis ñoo xam ne tey dañuy def sport teel ko def mais bu ñu tollee benn age bi day am ay conséquences si seen croissance day tax yenn blessures yu commencé di feeñ seen tànk seen yaram yi euh, loolu lan moo koy indi. waaw li nga wax doon am na solo aussi parce que hmm. euh, xale li li ñu warut a def mooy yenn euh, fa la war a di def ay pompes yu bari abdominaux yu bari ak musculation yooyu loolu day loolu baaxut si si si xale waaw genuflexion moom taxu koo baax sax même si mag parce que day yàq day teel a yàq genou ah, peut-être am na façon bu ñu koy defee mu tane mais mën nga ko def mu renforcer la mais nag dina yàq doo màggataal ay tànk day teel a waaw non day day yàq kii quoi ba pare surtout ni ñu koy defee surtout ni ñu koy defee fii dem ba egg di ko kii ak yooyu euh, am na manière bu ñu koy defee boo xam dina tane nga def ko surtout maa pa tànk yi gën a yaatu comme si salle de gym yeeg yooyu ni ñu koy defee di gën a wàcc benn niveau mais ni ñu koy defee dëbb ba egg ba kii loolu moom gaaw na si genou mhm. gaaw na si genou même armage yooyu sax gisee ñu bari dañuy am problème mu genou sama genre yi am yenn kii parce que ni ñuy travailler la ak torsion yi ñuy def seen kii yeeg yooyu léegi bu dee xale il est préférable nga travailler ko souplesse muy mu def technique yu yu écarté mhm. parce que yaram bi pour yaram bi nangu def ay yenn kata mooy kata mooy déplacement parce que kata dina tax day former nit ki mu mu am ay mouvement yu structuré ba pare mu mu am coordination mooy mu mën a comme ça kata regard bi xale buy tourné da nga xam fan la war a regard fan la war a xool xool espace bi dangay gis xale boo xam da ngay ñëw defloo ko kata mooy taawoo ci kung léegi moom mu commencé fi dem fee mu wàcc tapis bi day tax mu maîtriser espace am aussi day nit ki du day calculer mm-hmm. léegi bu commencé des fois fenn mën na commencé wàcc tapis bi nga ne ko fi nga est-ce taxaw fi nga taxaw baax na léegi bi paa bu ñëwee dina xam fi muy taxaw bu bu defee dina war a tap fi dina ko maîtriser ba du wàcc tap fi loolu yëpp day tax xale bi nga koy contrôler muy muy muy ba pare des fois nga diriger yenn xale yi yenn xale yi diriger hmm. yeneen ñuy topp mooy xale bi dafa ñëw da nga gis benn xale day ñëw jigéen ñi ñëw xale yu jigéen ñi ñëw diriger xale bu ndaw ñëw bu góor bu toll ni ñoom hmm. mooy foofu agression bi agressivité euh, bi am na ñoo xam xale yoo xam ne dañoo agressif hmm. léegi bu ñëwee nga jox leen benn xale bu toll ni ñoom wala jigéen bu ndaw mu leen di entraîner des fois premièrement bi dañuy dañuy mer da ngay gis ne dañ koy mere wala dañ koy xeeb waaw mm, waaw au fur et bu ko imposer après moom day loolu da koy wàcce muy muy am muy muy daal dafa am benn xaritu imam maa ngi koy nuyu mm-hmm. dafa teeloon dugal doom yi saal léegi yéen su ma comprendre xale ni ñuy entraîné gisuma fu ngeen leen di dóoree wala fu ngeen di tàmmal seen yaram yarami pour ñu wow wala mm-hmm. mais léegi mère bi li ko jaaxal moom bu njëkk da dóor doom yi di leen def lu affaire di sotti mais léegi nee buy dóor xale yi moom su paree yaramam mi loxo mi day metti xale yi baare yi ñu koy baaree yooyu léegi ma bëgg a xam léegi luy waral ku def euh, aar boo koy dóor moom du ko yëg lan la quoi lan la affaire lan la lan lan moo ne ci loolu. <laughs> waaw da koy yëg mais kii la euh, xam nga réflexe xam nga booy def arts martiaux euh, même si xale moo tax ñu koy commencé si xale yi ñuy leen di def loo kataay yi ñuy def nii coup de yi coordination yooyu yooyu ak mouvement yi parce que dañoo bëgg mu am réflexe. mu am réflexe parce que kiy def armage en général boo yëkkatee sa loxo rek war naa war a réagir parce que bu xam nga dootu am njëriñ <laughs> même bu dee bale la jël nee léegi wala yar nee na xale dañ koy baare mais su paree day mel ne xale yi dóoru leen voilà léegi nag mais nag euh, day renforcer seen yaram dañuy gën a am doole parce que technique yi ñuy def da gën a am doole ba pare ñu koy travailler xam nga li ngay travailler mhm. euh, béti li ngay def chaque jour quotidiennement di ko def chaque jour mhm. day dem ba am lu mu ñoo ngi ko doon def benn documentaire kii kii def art martiaux mm-hmm. temps bi muy travail di ko yàgg day dem ba day am leneen loo xam day lalu si kiyam boo xam day gën euh, day du dootu nekk comme nit nit normal normal quoi day am day am plus day am plus. Mm-hmm. ba pare bay def armation aussi dañ lay tentu aussi si nga mel ni militaire comme ça nga mën a muñ yenn yi aussi. parce que volonté bi ak mën a muñ. des fois waaw toj xol bi. Mm-hmm. des fois dañ lay defloo da ngay defloo élève bu ndaw xale bu ndaw defloo ko dara nga xam na. sonn na mais nga impo imposé ko pour pour pour xool xolam ni mu mel ak ak ak ak mu tàmmu mais maître yow yàgg nga ci milieu bi macha allah euh, xale bi nga xamante ni dugal nañ ko muy pratiquer arts martiaux ak xale bi nga xamante ni dugaluñ ko euh, boo leen comparé ci mentalité wala ci ci force ak yooyu am na différence. waaw mën na am mën na am différence peut-être am na ñoo xamante ni peut-être yàlla may na leen moom ñu. moom comme yàlla moom mooy defar moom mooy waaw naturellement kii mais si ëpp buñ buñ bu dee bu dee def armation ki na am différence si benn côté si côté surtout euh, physique surtout physique d'abord si côté physique d'abord parce que booy def armation day renforcer surtout maa xale yi léegi nga xam ne jamonoy écran lañ nekk xale yi dañuy toog si kër yi la ñuy toog climatisé ak tout tout tout xale yi léegi dañoo sédentaire bu njëkk xale yi da ngay gis ne écart ñun bi ñu nekkee xale écart périer lu nekk ki comme mag saa à dire euh, paa bi am 70 ans ku gën a suppi mhm. parce que xale bi yaramam bi day bloqué bloqué ba mujj yow dalay yow dalay waar yow xale bi moom nan nooy def ba kii ba ba kii si. Mhm. voilà li mu wax li li li wax nii. li mu wax nii lu nekk la parce que jabaru ji njëkk ja foy. dem ci ay montagne di périer ah, di xam nga dafa am yu bari yoo ah, xamante ni bi da nga ko doon def. te léegi dangay gis ni aar yi dañ koy def moo tax ah. ñooñu ñoo gënoon a neex a jàngal mais man beneen affaire laay ñëw pap mhm. xam nga damay gis ñu naan. Euh, carton rouge travail des enfants euh, di interdit xale mu liggéey ba noppi ñu bëgg a bàyyi xale buy entraîner est-ce que loolu yenn na maanaam xale buy liggéey. xale buy liggéey parce que fi mu toll nii xale yi euh, liggéey du dara maanaam liggéeyal sa papa ca tool ba. wala jàppale ko xam nga yooyu yëpp danga gis ni am na ay jamono ñu defoon benn campagne. di wax carton rouge. et pourtant xale bi defut lenn lu dul papaam mi ngi liggéey waaye laa papaam nekk menuisier jàppaloo ko muy léeg-léeg mu def li ñu naan carton rouge travail des enfants ba noppi euh, ñu wax ni fii euh, kii est-ce que loolu contradictoire waaw euh, saa foofu moom liggéey bi sax boobu gars yi ñuy nax rek di kii mais xale moom comme bu jamono ji mu defee chinois yi di tax ñoom maawo bëggoon lu nit ñi gën a bare yooyu pour pour loolu la woon moo tax Chine parce que xale moom dafa war a war a am xam nga ñun jàng bu jàng bi jàng ay at jàng vingt ans moo ñu tàddeel chaque jour doo am métier da génn ba pare door a xam la ngay def ñi am métier moom surtout sa papa am ko wala sa yaay am sa parent am ko day gën a yomb mhm. bu dee si côté arts ba tey ji sax foofu am na si frein parce que ñu bari boo commencé arts sax ñu bari dañuy xam ne ñeen ñi dañuy xam ne na lu ñu war a mën a boole la man nga di jàng di def di arts martiaux parce que dañ koy boole étude même sax léegi gouvernement yi dañ koy man tubaab yi mais je moom euh, beneen monde lañ mais mais euh, mais mais mais fii aussi da ngay da ngay bëgg a dugg wala ngay def arts martiaux parent bi na non non non bàyyil arts martiaux bi dama jàng kese comme ça ñoom sax foofu dañu la si privé mm-hmm. voilà xale bi day kii wala non na jàng ba pare boo jàngee pare pratiquement dootoo def arts martiaux pratiquement léegi foofu affaire bi day day fekk mu mu taa léegi bu dee bu dee chinois yi même si bi ngay wax da gis ne am na dëkk yoo xam te ni keroog dafa am benn ko xam te ni fat kii nee na sud sax la nekkoon léegi moo ngi benn hôpital fii léegi moo ngi mun wax naan moom dafa dem benn pays léegi dañ ne ko foofu xale yi ndaw yëpp dañuy dugal armation moo tax moom bu ñëwee mag la ah keroog dañoo daje foofu mu ne ma moom dama ñëw rek dugg dugg armation karaté après di ma laaj ndax karaté moo gën ma ne ko no armation yëpp baax na mu ne ma ndax sama âge man mën naa def parce que man damaa dem ci benn dëkk sàngam ñu ne ma léegi xale yi ñu ne foofu xale yëpp dañuy dugal armation mais loolu de motivation la boo xam te ni dina améliorer nit ki ba pare aussi même si jàng bi dina nit ki am persévérance keroog dafa euh, saa si wax dafa am benn parent bu ñëwoon Euh, na ma man bu jigéen ànd ak benn mhm. xale bu jigéen ñaar mhm. li ma wax mooy xale bi day jàng mais daa ndaw par rapport ak seen école mhm. léegi nag euh, déjà dañ koy tooñ ba pare aussi waaw waaw surtout loolu mu wax wax pour ma jàppale si <laughs> xale bi dugg na mais da nga gis ne ak dynamisme bi mu bëgg parce que moom moo ko doon wax yaayam ne ko dugal ma lii waaw mais bi mu duggee aussi danga nga gis ne ni mu avantage ni mu avant moo ngi si vidéo yi sax hmm. ni mu avancé dafa gaaw ba pare léegi esprit boobu ndax dañ ko dañ koy nongatu ndax day mer ak yooyu yooyu yëpp moom dépassé na ko moom moom sax si xale bi si boppam dépassé na ko parce que mu ngi xoolaat feneen am na benn sama benn waay aussi waaw waaw waaw parce que dafa am benn waay boo hmm. xamante ne bi nee moom day jeg loxo bi day metti nee na yooyu yan genre mouvement physique la mën a def pour loxo yi day <laughs> xam nga saa si armage yoo nekk dina renforcer. bëgg lu yomb rek dina tax loxo bi du def dara mu ngeen def effort xam nga armation nag dina comme ni ma doon wax léegi. non c'est que boobu ay baaraam. waaw je sais foofu laa jëm liggéey du def dara. armation dina sax mu ne jox ma. dina renforcer physique ah <laughs> dina tax souplesse dina tax coordination dina tax doo gaaw a mais. si si si côté style yooyu ngay wax noonu pour kii bi nit ki mën na defee étirement yëpp mu baax mais bu dee yi si gën mm. si côté boobu sénégalais yi développé wuñ ci noonu mooy qigong ak tai chi ak yoga yooyu tamit ay arts martiaux la ay ay style art martial la wala wala ñu koy wax gym santé yenn yi. Hmm. mais yooyu développé pour Sénégal kanam mooy ànd ak respiration mouvement bi xool euh, foofu dañuy gën a concentré wu sur le corps humain. mais maître euh, nga baal ma Sandiogou li mu wax nii. Mhm. am na yooyu ñuy téye di ko ngëb di mel ni ay boule di mel ni ay gélatine ak yooyu ah. te may gis nit ñi des fois di ko ngëb loolu loolu mënu mënu mënu ko dimbali. wala loolu du pour loolu. pour ñooñu non sans non non dama xamul pour lan la loolu. nga xam nga tamit euh, kii comme ñun des fois ñu defalee selu kii def tai chi kii def yoga ak yooyu mais ça dépend parce que am na loo xamante ni bu dee bu dee feebar boo xamante ni moo moo moo ko indi carrément. non moom est-ce que du noël léegi bu dee bàyyeendiku nag. bu dee bàyyeendiku étudiant waa ji sédentarité ko sonal. ndox sax bu ko jegee nii mu ne diw jox ma ko. Ah. du def dara dara eh, dara loxoom yi du ci def dara. <laughs> moom mi wala ko am waaye. loolu il faut bëgg si étiré wu étiré wu baax xam nga li gën a baax. si <laughs> nit ñi muy xale yi li ñu leen war def saa ah, <laughs> di étiré parce que saa xam nga yow fi nga toog nii. mais dama lay wax fi toog nii wala fi Omar toog nii ah. mën ngeen a toog di étiré wu parce que étirement. waaw dan la koy defee laajut laajut laaju tàng étudiant laaju temps nan la koy defee boo tëddee yaa façon yu bëri ma est-ce que du ma la si indil yeneen beneen jour sax loo xam ne ah bon do ma def billaay barke yàlla <laughs> waa ji lu dul tayal jàpp waaw mais tayal moo ko jàpp. mais béti ak. <laughs> lépp dañ ko koy def Salim wax béti fa entraînement yi mun mun. <laughs> kii waaye nag. <laughs> jaxase carte bi. entre entre uh-huh. waaw waaw ba pare xam nit ki day ñëw parents yi des fois comme comme comme ça. bul de comme ça mel waa léegi maître neel koy ay loxo. waaw ku loxo lan moo ci gën yan mouvement moo ci gën. wax ko ko moom bu demee dina nga wax waa ji. waaw ah, parce que am na ay mouvement tey si yu ñuy def rotation des mouvement yoo xam te ni. Hmm. Eh, poignée yi ba si kaw lay lay lay lay traité ak ak hmm. regard yi mais am na mouvement tey si yu bari yoo xam te ni qigong la loolu qigong la. léegi nag booy def booy def aussi bu dee bu dee si style style yi ñuy def nii mooy style euh, externe yi ñuy def nii. Mm-hmm. booy def ay comme pont yi ma doon wax nii. Hmm. wala ngay def ay ay ay mouvement euh, appui. appui force ak affaire yooyu yëpp yooyu yëpp day ah, day waaw waaw di def ay pompe ak yooyu ak di étiré wu lu bari xam nga étire xam nga étirement dafa li ma doon wax léegi dafay tax doo am ay douleur day day tax sa yaram bàyyi day tax sa deret di circuler bu baax même boo mm-hmm. entraîné te étiré woo sa deret du kii la te étirement ah boo seddee boo tëddee sa lal mën nga échauffement lañ du def fu fu te tàngoo mooy def musculation pompe am na ñoo xam ne dañuy. sëb si lal waaw mën nga tëdd si lal mën lu baax la. gisoom gis ngeen muus. bu yeewoo lu muy njëkk a def day étiré wu. fudd mais échauffement mooy pompe sëgg rek di pompe moom la du def wala ay abdominaux yooyu te mais bu dee étirement bàyyi sa yaram. saa yow doo pompe ba ba kii yóbbu sa yaram. si lépp étirement yomb na def sa loxo yi def mouvement yi loolu dafa am solo léegi yéen ñi ñàkk jot ñëpp dañ ko war di def ku ñàkk jot ñëpp dañoo war di itéréw bala ñoo ñëw so chinois yi des fois bu ñu jógee dañuy def comme tay si ñu commencé def ay mouvement tay si yoga bu ñu paree nag door a dugg seen bureau après day tax comme danga nga naan café mhm. da gën a nekk en forme mais maître man maa ngi lay laaj dara mais yaa ngi koy négligé des fois mu nekk ay boule yu yu yu weñ des fois mu nekk genre gélatine yooyu ñuy ngëb di ki loolu pour lan la da gis ku ci yor ñaar naan nii loxo yi rek di di di wëndeel. waaw ay méthodes yu gars yi utiliser la mais boobu yooyu. maîtriser wu ma ko carrément. Ah, pour pour affaire bul yooyu bon xaw ma lan lay signifier. parce que des fois peut être xam naa pour. Euh, pour renforcement la. di nga pap ah. euh, di nga na ñuy dem kër docteur di seen xaalis. di di dem lu bari. Ah. loolu. tey jii sport mënoon na ko régler des nga gis ki jàmbat tànk fekk xëy avec le poids de l'âge mu am yaram léegi poids bi ci kaw bu ëppee bi suuf rek mun na am répercussion ah, ci jeunes yi ak ci ah. sëw yi xam na yooyu yëpp day am léegi euh, maanaam nekk xale di entrainement baax na mais da ngay gis ñoo xam ne bu demee ba dugg yenn âge yi rek dañuy commencé di jël yaram commencé à maintenir en form maanaam di garde form bi nga amoon bi nga nekk xale comme macha allah catuwuma la mm. mais comme <laughs> yéen malgré l'âge da ngeen di téye fi ngeen di téye quoi te am na ñoo xam ne tey bu ñu commencé dugg 40 ans rek mm. biir bi commencé jug ah. lex yi ak kii na nit ki na nit ki nit ki lan la a maintenir en forme <laughs> xanaa moom boppam eh. ah. moom moom léegi day yar biir Omar yar biir ah. ak son yu yéen ñaar moom lay wax man domino laa domino man domino maître looy tëjee waaw yenn écart yeeg yooyu mais mm. même boo dee mag aussi booy def booy def sport xam nga sport moom lu ñu for lu war a forcé la lu ñu war a forcé la loo xam te ñëpp ko war a def parce que ni ngay lekkee di naan nga war a defee sport ah léegi nag san dépend si sport yi ngay def mhm. mais nag nit ku nekk euh, si bari na ay façon waaw marche baax na natation macha allah natation excellent ah. vélo yëpp baax na mais sport voilà waaye ay waaw mais boo amul temps boo amul temps ngay étiré wu lu bari ak di dox di dox lu bari di étiré tu <laughs> mm. <laughs> boo étiré woo dox lu bari mm. baax na euh. léegi mais nag pour dindi yooyu ak yooyu fa ngay fa ngay travailler euh, abdominaux travailler appui avant travail yooyu yëpp yooyu mënut a mm-hmm. ñàkk foog nga def foog nga def physique bu dee ñuy def arts li tax ñu am chance ñoom mooy kii def arts martiaux en général da topp pour waroo waroo arrêté pratiquement parce que heure boo arrêté rek presque defatoo kii def arts ba cent ba quatre-vingt-dix ans moo ngi am jot wala mu am mu am kii lépp day jéem a def effort. waaw maître ñu tëjee foofu am na solo. Mhm. tey de mat nga invité moom. waaw waaw tey il fallait que affaire xale yi rek. waaw ba pare parents yi dañ ragal mais xale moom bu ñëwee rek day gën a. dal ba pare day gën a ñemee aussi. xam nga ah. xam nga li tax ñu naan ar pratiquant arts martiaux duñu xeex. xam nga nit ki boo tooñee man ma nekk comme ça fi bu ma tooñee nga xool ko yow ne ah man mi kat peut-être damaa ndaw. rek sa xol day jóg parce que da nga naan ah waa ji damaa yàpp moo tax xam naa li ma daw moo tax <laughs> mais boo defee armation loolu day génn sa bopp parce que yow doo ko bàyyi xel looloo tax nag en général ñu si def a a a fi ñëw keroog fu mu mujjee mi ngi avancé. maître kii nee woon na ko mais dinaa dinaa xool si. ñu après baax na.